باسم الإله مني صلاة تقي ديرا جهادي كما يفدي إلى نبي الخير على المصطفى مني صلاة تقي ديرا جهادي كما يفدي إلى نبي الخير على المنتقى مني سلام مطهر لكل يد تبيرات مع جورا صلاة وتسليم من الله سرمدا على من برزاق يسافي لي الميراد على من به الكل وراء أنزل وراء صلاة وتسليم يتومان لزورا من الله رب العالمين سيعقي به البرار بجاه رسول الله من كالكلي سرار alayka salaatullahi summa salaamuhu dawaaman kama abna ila xayri asharra taqaddumuka albaaqi badali wa qaala li nawalan ajiban laa الله رملي كونوني بفضله إذا طلبت من إلهي جلبا ولن تقود السؤل وقت الطلب man Serigne Touba su may laaj ak la may laaj ba ma koy laaj laata ma koy laaj fekk na suñu borom jox ma ko loola siiw ci njaboot Serigne Touba gépp Serigne Abdou Khadre Mbackeem Serigne Touba. nga nu tudd jiilim sëñ Abdou Aziz mi président comité pilotage mas naa wax ni am naa kersa sama diggante ak sama borom ndax lu ma xalaat man Abdou Khadre bala ma ko ñaan yàlla indil ma borom ginnaaw suba dem nañ ba bàkke ko na am mu am du am mu am du am ndax jubóog yàlla loolu moo dikk ci Serigne Bara moo dikk wala bal ci Serigne Soaybu moo war moo tax rajaay Serigne Touba jëlee nam yu xayib la ciy teg lu ma yaakaar ci sunu borom lu man njort defal nañ ko mu tax nag moom Serigne Bara ne li tax sama bokki taalibe ñëw ci bis bu mel ni am solo dafa wax ni man yaatinaa yaxwi diyaaran wa asraaran man Serigne Bara ak foo mën a nekk ak loo fa nekke ak koo mën a doon soo su la yàlla baaxee ba nga jóg ñëw ci man ami secret ki loolu mas naa dégg sunu maaj yi suñu yàpp man yàlla ku jóg jëm ci man egseeg jàmm kuy dem àgg ak jàmm borom tuba yëngal ah fottu si baax na ci parce tant bi warul ni teg na yëngu bis bi dafa rëy nay ànd ak fottosu ak ak ak yëpp sarxole sax loolu mooy bis bi gis na boo xam ni benn waay daa bàyyi ko Louga leer la indi wax Serigne Fallou ak seere Serigne Bassirou ci seen baar li tax siyaare am solo tooñee ngi sawara akumaa bëggoon yàlla nee na seet sa waay njox la ndax Baara ñu ko dëppal doo seen sawara yëkkati loxoom loolu jar na liggéey ba dee borom bis bi xam nga ku sonnal ku jaru sonnal jariñu ku sonnal ku jënta sonnal fil maydani min ahadi waaye déggal sëñ Fallu wayal sëriñ sa gan gi nga am tey mu faral si la weesal bii bërëb gaaw lu wax borom mu ne waaw sañ-sañ doon si seeni yoon njanaaw la awulu yoon Cheikh Mouhamed Lamine Bara mix na xoo Modou Bassirou Mbacké miftaax kulli xayri bu ma dee mix laa xum bu may dégg laa rek miftaax kulli xayri nga jox ma caabi bépp yiw ba yàgg mu ne fi may daaneele wajal iyaali kamis li nam li fil kusri wal awsaafi aqilan yow sunu borom dafa ma njaboot gu barkeel gu bari gu barkeel gu mel ni xorandoom la ca ne da yàpp seet bu baax Serigne Saliou Mbacke bu Serigne Ba bi muy wutu Serigne Khadim Awa Ba ay tub tànk la fi bàyyi mais ni ginaar guy roog a tostal rek mu uuf ñëpp kenn jooyul Serigne Khadim Awa Ba taxaw ñëpp góor ak jigéen ba ñëpp seere ko Serigne Bassirou yàgg na ko wax daaw rek dégg ngeen témoignage si aboo ci moom noonu koy siyaare ci bis bu mag bii bisu Cheikh Mouhamadou Lamine bii nga xam ni Serigne Touba daaw mokk lu jur ku la yar la daan wax bu seetaan moom njaboot gi itam mën naa demee waaye mu taxaw ci taxawaay bu mat bu def ko ci ñoom ba kenn ku nekk mokkal alxuraan bind téere teg ci loxoom mu jaraloon ko lu nekk kon Serigne Saliou ñu ngi siyaare bu baax a baax di siyaare njaboot Serigne Bara waaye di siyaare waa kër sëñ Ahmed Bara sëñ Ahmed moomu bi may tudd doomi Serigne Touba ko tuddee Sidi Mouhamed moomu doomi Serigne Touba la moom soxna moomi ñoo bokk lépp ak soxna Maskora muy Sidi bi noo koy nuyu di ko siyaar ci ndax moom it at mu jot dañuy tudde benn doomu Serigne Bara moomu dul yëf daal di jàll na doomu Serigne ko Serigne Bara tuddee kon ñu koy siyaare bu baax a baax di siyaar waa kër sëñ Modou Afis muy sëñ Modou Baara mi nga xam ne mooy taawu Serigne Baara di premier sëtu Serigne Touba di siyaar mbokk julli yëpp waaye di siyaar soxna yi mbàkki mbàkk yi nga xam ne bàyyi ko nañ Touba ak daayira yi bàyyi ko Kébémer ak yeneen dëkk di siyaaree sama jëwlin Serigne Mafal Fall di ko bu Serigne Modou Awa Balla di wax délégation Darou Mouhty yëpp teew nañ ci bis bu mag bi nga xam ni mooy bis Cheikh Amadou Lamine di dem rek di nuyu waa diaspora bi di nuyu soxna euh, Adi Mbacké bintu Serigne Khadim Awa Ba ma nga Marseille ñu ngi koy siyaare ak bokki tali bi ñu ngi ñuy seetaan en direct di nuyu waa Paris di nuyu Serigne Djili Abdoul Aziz président euh, comité pilotage soxna Adi Mbacké taxawaay bu rafet bi mu taxaw ànd ko daayira Marseille ak tali bi ak fañ ko teg bis ni tey ñëpp ngi toog ca télévision ya dinu seetaan di xool su nekk kiral sëñ Baara màggalug sëriñ Baara gi weesu maa ko waxtaanal ci Marsay daaw itam noonu ñoo ngi koy jot li nuyu ak siyaar di ànd ak waa diaspora bépp Italie France Danemark euh, Abidjan Paris Fallou Seck Paris mi ngi nuyu ñëpp seen mbokk talibé Cheikh Awa Balla Seck journée culturelle Serigne Bara rendre hommage rendre hommage sunu sang ba Serigne Cheikh Khadim Mbacké wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalaatu wassalaamu ala rasulillah. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi loolu leen nuyu di leen siyaar di leen nuyu ci turu Cheikh Sidi Mokhtar di ñaan sama borom bu dul fanaan te wéral ko ñoo leen di nuyu nuyoo bu gën a tedd ci nuyoo yi di leen nuyu ci turu Cheikh Sidi Mokhtar ñoo ngi sant suñu borom dellu di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax jërëjëf Xaadimu Rasuul sëriñ baa ngi leen di nuyu di nuyu mboolem taalibe yi ak mbokk yi fi nekk yëpp nuyoo bi nag dañ koy tàmbalee ci ki nga xam ni moo waral bis bi muy Cheikh Mouhamadou Bassir mi nga xam ne moo taxawal maamam bisam bi dem def koy ati at ànd ko mboolem ñi nga xam ni ñooy njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké mu mel ni waxtu bu nekk Serigne Touba mooy wane boppam ci jamono ju tolloo ju ne képp ku mu doon ci njabootu Serigne Touba bi la ko tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci soxna May lépp kiimaani Serigne Touba la ci Serigne Touba kenn koo ci jàppal bis wala nga di ko màggal rek ñëpp nga ko defal kon noo ngi siyaare soxna maam Bousso mi nga xam na moom lañ jagleel bis bi muy Serigne Abdou yàlla sa borom sotti ay xewal ci kaw di nuyu sëriñ Abdou Mbacke nga xam ni moom it suñ jàmbaar ji nga xam ne muy sëriñ Cheikh Khady fi jóge yàggu ñu di ko ñaanal sa borom sotti ay xewal ci kawam di ko siyaar di siyaarewaat njaboot suñu Amad Mbacke gi nga xam ni moom lañ defoon guddi yi ci ginnaaw yooyu yëpp day wane rek booloo boo xam ne waa kër Sëriñ Touba war nañ koo booloo jàkkaarloo ak jamono ndax jamono ji fii mu toll ak yii judd ni mu bare bis yu mel ni ñu war nañ koy taxawal di ci fàttaliku jukko yi gaay yu baax yooyu lu tax koo fa gis jamono ji man ci amee am lu xam wax loo xam ni mën naa tukkal jamono baaxul Sëriñ Tuubaa rek a tax waaye kon nun ñi nga xam ne nooy taalibe Sëriñ Touba war na noo delloowaat suñu bopp ci Sëriñ Touba li tax ñu war a delloowaat suñu Sëriñ Touba mooy njaboot Sëriñ Touba gi duñ moroom duñ naw ndax nit bu fekkee yàlla doo koo teral jox ko jabar bu mu teral jabar boo ko mën na nga leen teral nun nag xamuñu far sa bopp fàtte Sëriñ Touba te bari na jëm ñoo xam ni yaakaar nañ ni Serigne Touba la ñaagal mu mel ni dañoo fàtte Serigne bu a fàtte seen bopp te loolu musibam àdduna la yàlla ci yàlla musul kon Serigne Bassirou gërëm di ñaan mbokk yi nga xam ne ñoo fi nekk suñu réew mii nu am ñu ñaan ci jàmm nawet bii nga xam ne moom lañ jublu jataayu jullit bu demee nii duñ ñaan saa borom mën na caa dëppoo nga nangul leen ko kon da ngeen ñaan réew mi am jàmm nawetu jàmm boo xam ne dana ñëw teel barkeel te njëriñoo bi ci des mooy yow sëriñ Bassir dolli la góorgóorlu ndax nii nga def ñi tolloog yow te di ko def yaakaaroon ci lenn lu ngërëmal Sëriñ Tuubaa ngërëmal sëñ Tuubaa loolu yàlla na ci dëppoo ak moom bi ci des ñu koy tëjee mooy ki nga xam ni moom la yàlla dénk réew mi muy président Macky Sall yéen li nga xam ni yéen a fi teewal noo koy nuyu di ko jot nuyu yëpp sëriñ bi di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal réew mii nga xam ne moom la jiite saabu defal ko ci ndam. di ñaanal ñëpp ñi mel ni moom te bëgg a réew mi ak fu ñu fa xalaat yàlla defal leen ndam ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند يستبشرون ب لا يرون إلا ما يسرهم وينفعهم في الدنيا والآخرة وهم يدخلون الجنة بغير حساب والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار maa ngi nuyu mbokk jullit yépp di commencé ci ziyaara al xalifatul aam sëriñ Sidi Moxtar Mbacke di ñaan yàlla yàlla may ko fan bu gudd ak wér gu yaram di ko ziyaare mbooleem njabootu waa kër Sëriñ Tuuba di ziyaare alxulafaa yeneen tarixa yi ci nekk ci réew mi ñu ngi di ziyaare ñoom ñëpp di nuyu njabootu Sëriñ Tuuba gi fi toog gépp yaakaar naa ne buñ ci tuddee sëriñ Mahmoudan Mbakke ak sëriñ Mahfouz Mbakke yóbbul na nuyoo ñi fi nekkal ci njabootu sëriñ Tuubaa gi di nuyu sëriñ Cheikhouna Mbakke mu Alaaji Baara ci toogaay bi mu fi toogal mu bàjjan yi nga xam ne waajuram lañ tuddee tey journée bii moom lañ dënkale ak Serigne Bara ci journée bi kon moom it ñu ngi koy jox suñu ziara ci turu njabootu Serigne Bara yëpp di nuyu président de la république Macky Sall jaarale ko ci waaw euh, nuyoo président de la république Macky Sall sëriñ Bassirou Karim Awa Ba nee na santal président de la république wante dañ dañ koy ñaanal ndax charge bi dis kon ñaan moo gën ci moom kon sëñ Bass sa mbokk yi fi toog yëpp njaboot Sëriñ Tuubaa ci sa tur ñu ñaan kon ñu ñaanal Macky Sall yàlla woyefal ko yan bii ko yàlla teg ba Sénégal fu ko bëgg a jëme mu àgg ko fa muy jëme boo xam ne nit jëme bu positif lay doon kon nag ah, nuyoo boobu ñu ngi koy teg ci loxo Ali Nguy njaay bi nga xam ne moo jiite délégation bi une forte délégation ah, Ali Nguy Ndiaye xam naa ne su ma waxoon ci moom fi ne dañ naan sëñ Cheikh mbiri wante Ali man ak moom dañoo yàgg dañoo xamante bu yàgg bu mu nekkee BHS man ak moom liggéey nañ muy nit bu baax ku yaru bëgg sëriñ Tuubaa lool man nag du ma kenn lu ma xamul ci yow wante Ali mën naa ko seedal ne taalibe sëriñ Tuubaa ndax dund naa ko ak moom kon nag Ali ak délégation bi nga àndal ñi nga àndal ñëpp xam naa leen wànne mënuma lim ñëpp ndax yow yaa jiite délégation bi kon nag na nga xam ne kon suñu gërëm ñun jamono sëñ Baara ñu ngi koy teg sa loxo nga teg ko ci loxo président de la république di nuyu tey sant taalibe yi ndax ñoom ñooy ndey mbili gi ñooy lépp bu ñu wootee ñooy jiitu te ñoo fi mujj kon nag li tax ngeen koy def ci yàlla rek moo tax yàlla bi man tey fay yàlla leen fay ci barke Serigne Touba Serigne Bass ne woon rek ne nuy santal ko mbokk yi taalib yi délégation gouvernementale ak xarit yi ak soppe yi wande bu doon ñaari baat yoo xam ne nii ndax ku dajale mbooloo mu toll nii te diine tax war naa am loo leen dénk tuuti te liñ leen dénk du ludul ñu delluwaat suñu borom Sëriñ Tuubaa lii mu am amu ko ci caaxaan te yàlla daraam lépp da koy jaay yàlla bindul dara ci caaxaan wa maa xalaqnaa samaawaati wa maa wa maa xalaqnaahumaa illaa bil haqq walaakin aksarahum laa ya'lamuun yàlla li mu bind yàlla nee na man binduma asamaan ak suuf ci foofu dama ko bind ngir doomu aadama yi jaamu yàlla wante xel moomu bari na ci ñun ñu ko amul sëñ Tuubaa nag buñ ko bëggee topp bàyyil na nu fi mbind bàyyil na nu alxuraan bàyyil na nu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te alxuraan wa maa kaana li muminin wala muminatin iza xada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alxiyara fi amrihim li nu yàlla bàyyee dafa ak lu ñuy dafa war a dëppoo ak lii yàlla wax ci alquranil karim ñu ko rafete sunnay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam topp Serigne Touba ca se jamono ji nag wax naa ko barki démb ne journée bii dañ koo war a thème bi dafa war a nekk thème boo xam ni day laal la jeunesse ndax ku gis xam ne jamono ji jamono ju jaxasoo la jamono joo xam ni kenn xamatut foo jëm te loolu lépp nag manqué ci foo tënku ak référence nee naa sëñ Baara bu ñu ko tuddee ay journée wuñ ko rek ngir di glorifier glorifier sëñ Baara ndax yàlla rek lañu la yàlla rek la ñu glorifier yàlla rek la ñuy màggal waaye dañoo bëgg dunduk sëñ Baara comme que nitu yàlla la woon ku baax la woon ni mu doon dundee ak njabootam ak i taalibeem ak i mbokkam ak diine ji loolu lañ bëgg a fàttaliku ba nga xam ne ku fi jógee da am loo fi tiiree mu ànd ak yow di la jariñ ba déwén Serigne Touba mii ñëpp xam nañ ne bi bii psychose bi am ci àddina bi muy le terrorisme ñëpp xam nañu ca la plupart recrutement yi ñu def yépp muy état islamique ak muy mu jawo wala muy n'importe quelle organisation terroriste seen seen seen euh, recrutement ci jeunesse bi la gën a jublu te li ko waral lépp mooy pauvreté mooy lal bi ak ñàkk xam dara ñàkk am référence kon état naam am na wàllam ndax mooy gérer la république mooy recevoir ay loi waaye na sëriñ si tam am nañu seen part de responsabilité bu rëy ci lii dal xale yi kon sëriñ si tam war nañoo taxawaat taxawaay boo xam ne nii danay jàngalaat xamalaat nit ñi ñu delluwaat ci yàlla ba nga xam ne kenn du leen mën a këf ndax nit boo ko defee ba mu dëgër formé ci yàlla ba mu dëgër ba mel ne xeer ngelaw du ñëw yëpp ngelaw du ñëw yóbbu waaye su melee ne fëy ngelaw du ñëw tourbillon lay doon fu mu jëm jëmaale ko loolu yàlla du ci yàlla musal Sëriñ Tuubaa nag mi nga xam ne mooy su préférence mooy li ñuy wax non violence moom moo ko incarné dama ci joxe ñaari exemple sëriñ Touba ngàndaay benn la ci masa denc nee nañ saatu saatu bi muy defaree xalima yi muy bindee loolu la Serigne Touba masa yor ci ngàndaay saatu paaka bu ndaw te pour daas li muy bindee te bu ca paree dégg naa da ko daal lem denc ko koo xam ne doomu aadama du ca mën a accéder ba mën a gaañ boppam deuxièmement tour deret Serigne Touba nee nañ benn yoon la ko mas def ci àdduna mooy bi muy bind téere tur sallallahu alayhi wa sallam fu fa accès da koy def gros caractère muy bind daaju xonq ji jeex mu dagg loxoom jël daaju sëpp ko ci pour bind ci turu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boobu la mas a deret kon kooku ko royee incarné lim nu lim nu lim nu won ci diggante yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon danañ nekk ay nit ñoo xam ni danañ mat ba nga xam ne kenn duñu mën a jël bu fenn kon nag ñetti baat yooyu rek laa doon jox yóbbal di ko jox jullit yi te ñaan yàlla yàlla may nu fan bu ak wéeru ba déwén ñu mën ko fekkewaat te liñ fi tiire ci ay enseignement ci sëriñ baara ci jukko yu baax ñu fas yéene ko pratique ko ay yoon yoon boobaa ñun danañ dem defar suñu bopp ndax defar nit moo gën ci nit am alali àdduna wala ak leneen ak ak leneen kon nag sëriñ Bassirou maa ngi lay gërëm di ndax lii nga def ñun ñii say mag waroon nañu bis bu ne ma wax la ko da njabootu sëñ Baara yëpp sant nañ la gërëm nañ la au delà de njabootu sëñ Baara njabootu sëñ Tuubaa yëpp sant nañ la ndax tam sëñ Baara ku ko defal dara defal ko ko la dale Cheikh Mamadou Moussa ba ci ko gën tuuti ci njabootu Serigne Touba ko nag maa ngi gërëm ñëpp di sant yàlla di ñaanal sëñ Sidou Mokhtar encore une yàlla may ko fan gudd ak wér gu yaram waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu aoudu billahi min asheytani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina mohammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi man ihtada bi hadihim ila yawmi din mbokki jullit yi mbokki waa Sénégal ginnaaw ba ñu sante sunu borom tabaraka wa taala noo bi Muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di sant Mustafa di ñaan Cheikh Sidi Moukhtar suñu borom bi yàggal ko fi ba naal yi mu naalal Serigne Touba mu eggale ko eggale waale naal yi boppam te nu ànd ko ak moom te lépp dëppoo ak ngërëmal Serigne Touba. ñu ngi nuyu ñëpp góor jigéen mën a ndaw di sargal bu baax Serigne Bass ci bis bii nga xam ne organisé na ko te mu nuy delloo. ca maam ya euh, di nuyu turux yi nekk ci Sénégal yëpp ak xulafaa yi nga xam ne ñoo nekk ca bopp yam te di doxal diine ji ci lislaam ci biir Sénégal kon sëñ Bas lii dafay mel ne boo ko gisee sax dafay xaw a mel ne lu munta nekk waaye sunu borom soo ko nekkalee mu nekkal la tey boo jéemee rek mu kàttanam la dafa wax ci boppam wa laqad karamna bani aadama wa hamalnaahum fi lbarri walbahri wa razaqnaahum min altayibaati wa fadalnaahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila kon loo jéem rek rawatina ci lu baax dafa mel ne nga tàmbalee ci màmmaaram ak njaboot gi nga xam ne ñoom nga ko réew mi te saxoon ci lu baax ñépp dajale nga leen ci benn salle tey te loolu mooy fonk ndono yi mooy feddali kóllëre gi mooy dëggal dafa mel ne dañoo dëggal ci yow la xaadimu rasul doon ñaan wa hab lana al amala saaliha yaa xadimu kon noo ngi ak tey sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma sëriñ Abdourahmane sëriñ Yuusu Mbàkke ñu teewal fi euh, sëriñ Ahmadou Maxtaar ak waa Daaru Xudoos yëpp di la gërëm di la sant di la xamal ne lii nga def ñun ñëpp nga ko defal euh, di la sant itam ci turu conseil supérieur bu Daaru Xudoos euh, kon lii day loo xam ne lu mata di amal la ndax réew mi ni ñu ko waxee def nañu ba yu bari bëgg fee euh, dox te daaw fi am bu jëkk mu xaw a wuuteeg xalaat yi mag ña tuuti te mag ña luñ fi jëbatoon moo xam maam Seydi Alaaji Malick la maam Imaamul Laay la Seydi Ibrahima Niass la di maam Cheikhul Khadim ñoom ñëpp li ñu fi jëmbatoon moo di sunna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak tolérance boo xam ne dañu ko def ci giru imaamu Malik Serigne Touba ci boppam la mu waxoon mooy di yaa malikal mulki yaa man jalla an xawadi arham jagal wala yaa hadiyal bada kooku plaidoyer la boo xam ne dafa yóbbaale àddina bi yëpp kon jàmm moo fi xaj liggéey moo fi xaj ñoom ñu fexe ba def Sénégal réewum jom teraanga ak nangoo jàmm suñu tabaraka wa ndax lépp ci jàmm rekk la xam kon jàmm jooju mel na ne lu mel nii mi ngi koy suuxal kon alhamdulilah yàlla yàgg na ko na ci ñëpp jàpp Sénégal noo ko bokk ñu ko séddoo kon li ko wër lépp dañ ko war a aar na leen jàmm am fa ba mën a law parce que bu jàmm amee fii te amul fu ñu wéeru itam du jëriñ dara kon yàlla yàlla dafa jàmm fépp lu muur loo ko du jaay sa jot ñu ngi lay félicité ci bis yi nga xam ne daa mat di gën a amal ndax mbokk yi ci la ñuy dajee di saafante bu ko defee euh, la fi maam yi bàyyi woon du réer du gaaw a réer te loola ci lañ war a tënk mooy ñu nekk benn di saafante di yéeneente jàmm di góorgóorlu di liggéey na ko Serigne Touba waxe woon kenn ku ne dafa wax ne laa taqsidu istimalatal baraya lakum wala xasakumul hadaya ñu sax ci loolu kenn ku ne di góorgóorlu di jéem a ñaq te xam ne liggéey foofu réew mi àgg liggéey rek moo ko fa mën a àggal kon ñun ñëpp nan laxa saayu fonkante bëggante yéenante jàmm fonk liggéey am jom am bu ko defee dana am teraanga bi xam ne mag ñi ñoo fi jëmbatoon ak ndax bàyyi nañ fi jom jooju te loolu Sénégal mérité na lu mel noonu kon ñu ngi lay sant bu baax di la ñaan nga yàgg ko def di jaay sëñ bu jot wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon kàddu yi nu ci sànni ñoo ngi ciy jiital sunu nuyoo ak sunuy siyaar ak sunuy ñaan jëmale ci sunu kilifa bu tedd ga di mawlaana al cheikh sidil moxtar mbàkke xafidahullahu moom mi fi nekkal sëriñ sàmm njabootu sëñ di bokk di taalibe yi kon noo ngi ñaan ko fii te may ko wér sumbam yëpp ak li mu yee yëpp ci barke Xaadim Awa maa ngi lay jottali sunu nuyoo ak sunuy cant ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne moom ngay taxawal sunu wajur wa di Mawlana ak Cheikh Mouhamadul Lamine Baara Mbacké ridwanullahi alayhi wa nafaana bi di jëmm joo xam ne ku ne xam na cëram ci kër Serigne Touba yax takk ci Serigne Touba Serigne Touba sént ko loo xam ne sëñ Tuubaa sédd ko loo xam ni waxtu réew mi mosaa am ak jaaxle wala ñu soxla nawet magam ju tedd Cheikh Mouhamadul Moustapha danaan wax ni yónni leen ca Mouhamadul bu ñaanee rek nawet bi ñëw nga xam ni faj aajo yi moom la gënoon a gaaw kon nag fàttaliku ngeen koy fàttaliku ngir njaboot gi di man gëroo ci moom loolu lu rafet la noo di sant di la bu baax di leen sant itam ci jëmu ji tedd ji nga xam ne mooy Cheikh al Abdou Samad Mbacké al akbar nga xam ne moom nga tarale bis bi moom nga ko jagale di sunu kilifa di sunu lépp bokkoon sunu waajur ndayeen bàyyi sëriñ Abdou Samad jëmm la joo xam ne ni nga ko waxee ci yëgle bi dund ko gàtt la dund waaye dund ko fes dal la dund ndax yàlla baaxee na ko muy doomi Sëñ Tuubaa waaye yàlla baaxee na ko muy jëmm joo xam ne li ñu daan nawee doomi soxna di ko namee nitu yàlla suñu borom ci moom ndax ci ndawam nekk na xaafit nekk na aalim nekk na aabid nekk na it ab liggéeykat fu mu mos fu ne jàngale alxuraanul karim jàngale xam-xamu diine yar taalibe yi cib liggéey loolu la fa nekk woon fa tabaarakallaahu ndombal tànk yépp dajal ci moom ndax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki gën ci mbindeef yi ki gën ci nit ñi mooy ki jàng alxuraan wëlbatiku di jàngale te Cheikh Abdou Samad ca loolu la nekkoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal dama wax ne al ulama warasatul anbiya bu yonent yi jeexee ñi leen di wutu mooy al ulama di waram xam-xam yi ci sama bokk na ci ñooñu di jëm yoo xam ne léppam da koo jox diine léppam da koo jox taalibe bi léppam da koo jox yoon bi te ñaari baat yi sëñ Tuubaa wax dafa wax ne al ilmu wal amalu jawharaani a yab daaray nii yajlubaani yaa ngi ca ca la Seex Abdou Samad nekkoon Sëñ Tuubaa nee na xam-xam ak liggéey yaari jàngal lañu yoo xam ne li muy jox borom mooy yiw àdduna ak yiw àllaaxira te loolu ca la Seex Abdou Samad nekkoon muy mbar muy yeneen dëkk yi nga xam ne yëpp jaar wala sanc na fa fenn fu ci nekk taaru jàng la def. fenn fa ci nekk yar ñi leen ci yaru diine fenn fa ci nekk jàng leen liggéey moom la doon ci la ci la nekk jàng suñu borom fay la gën ci du am solo ndax sëñ bi dafa wax ni amal bi tawakatu watat yewul om bi ne tayel wala jël say di ko consacré ci leneen lu dul yàlla nee na loolu rek ngay jëf bis bii nag bu ñu ngeen xam ni ñii ñu koy wooteel dañoo jeex seen borom tàkk te loolu mooy li am solo ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na leen idaa maata ibnu aadama inqata'a ay ilaa salaasa ilmun yantafi'u bihi aw amalun saalih aw waladun yad'u lahu yonent bi nee na nit bu génnee àdduna yiw wa koy fekk ci bàmmeelam yiw yëpp day dagg ba mu des ñetti yëf xam-xam boo xam ne dañ koy jariñoo gannaawam wala jëf joo xam ne jëf na ko muy œuvre sociale moo xam tabax ay jàkka moo xam tabax ay dispensaire moo xam def yaay yu la la ko ñetteel nag mooy doom ju sell joo xam ne dalay ñaanal kon seen bési wu noonu bu baax a baax a baax di la sant itam ci sunu nga xam ne moom nga jagleel di a cheikh sëñ Cheikh Xadi Mbàkke moom borom Daaru Muxti nga xam ne dundam gépp da ko jeexal ci liggéeyal diine liggéeyal man Cerno Birahim taxawu njabootu borom daal muti kon nag boo ko dee fàttaliku te mu jóge fi bëgg demoo jaay loola defal ko ko bokki taalib bi yëpp defal ko ko bokki daaru waxtu yëpp defal ko njabootu seen tubaab yëpp loolu ñu sant na ci gërëm bu a di nuyu itam ñi nga xam ne ñoo fi teewal kilifa gërëm mi di président Macky Sall te buñ ca tuddee Aliou Ndiaye bokk ci njabootu seen tubaab te jiite délégation bi tudd ca Birima Mangara tudd ca Mariama Sarr tudd ci Cheikh Bakk Sarr ak mboolem ñu àndal ndax bisub sëñ Touba ba def rek njaboot sëñ Touba yëpp ko defal taalib yëpp ko defal diir yëpp ko defal kon noo ngi lay ñaan nga jottali ngërëm yi bokk yi ak ngërëm yi taalibe yi président de la république bi ñaan sa borom booyal foofu yan bi te sàmm ko bu baax a baax fi ma jeexalee nag mooy di sant mbooloo bi bu baax a baax ñu yi di leen gërëm bu baax ci seen taxawaay ci bis bi ndax bis bi lépp seen bisu bopp seen njaboot ci boppam ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaan ni ko sëñ Cheikh Aliou waxe ñu gën a góorgóorlu ci fonk suñu diine fonk alxuraanul karim fonk liggéey bi sëñ Touba bañ a boole sëñ Touba dara nu fas yéene tënk ci jaamu yàlla te xam ne sëñ Touba li soxla tey ëllëg lépp dafa nangu najaahumul baaqi minal a niiraani dunyaa wa uxraa minal xusraani mboolem bi doon soxla tey a sëñ Tuubaa defal nañu ko te nag njëriñu tey ak njëriñu ëllëg mi ngi dugg si ngërëmul seen borom tabaaraka wa taala ridwaan wa rahmatan minallaahi badii xayrun minad dunyaa wa maa fiihaa jamii'a sëñ Tuubaa nee na ngërëmul yàlla ak yërmande yàlla moo gën àdduna ak li si biir kon nu góorgóorlu bu baax te gën a boole suñu bopp. gën a fonk suñu diine di ko dëppal solo sama Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen ko sant baax santaane man talabal usula lil jalili falyatasim bi sunnati rasuli sëñ bi nee na ku bëgg a àgg ci yàlla da ngay mooy ci sunnas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du mu ala sunnati wal ijmaai baada kitaabillahi bi ijmaai ngir mooy ci sunna sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak borom xam-xam yi gannaaw bi ngeen jàppee ci téere fa borom tabaraka wa taala te nu góorgóorlu baax tey ñu xam ne jamono bi yii fëkkee bari na waaye li mu mag ñi andil Mawlana Cheikh Ahmad Bamba Cheikh sëñ Cheikh Oumar Seydi El Hadji Malick Alaaji Abdoulaye Niass Limaamu Laay ak mag ñooñoo ak ñañu jamono teel li ñu andil doy na sëkk nanu ci ngoy te téye te bañ a xool feneen bañ a xool leneen na ngi yàlla ci barke Cheikh Mouhamadou Lamine ak barke Cheikh Abdou Samad sunu borom defi nawet bu barkeel nawet bu gaaw te sunu borom def ci réew mi jàmm dëppale xool yi ba barakaatu Xaadimu Rasuul noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp eh, di gërëm nag li nga xam ni mooy jëm Sëriñ Abdou Samad di ajo soxna maam bu su la di sunu mag di sunu doomu nijaay di sunu lépp tey saytu mboolem kër Cheikh Abdou Samad noo koy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax te ngërëm la it na nga koy wéyal ci doomam di sunu jarbaat di sunu doom di Cheikhouna Mbacké mi nga xam ni noo ngi rafetlu aw doxinam bu baax a baax moom mboolem njaboot bi noo ngi sant ñenn di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aoudu billahi min alcheytan rajim bismillahi arrahman arrahim alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين والحمد لله القائل إن هذه أمتكم أمة واحد وأنا ربكم فاعبدوني wa anna hada siraati mustaqiman fattabicuuhu wala tattabicu subula fatafaraqa bikum mbokki julli di mbokki taalibe yi gannaaw ba ñu sante suñu boroom subhaanahu wa taala jalla jalaaluhu rabbul izzati azza kamaalu julli suñu yonte bu tedd bi sayidina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu mbooloo mi di jiital ci nuyoo bi kilifa yi di wax ki turu Serigne Saalihu Mbàkke xaadim awba mi nga xamee ni moo toog fii toogaayu Serigne xaadim awba di kilifa njaboot gi di kilifa ak Serigne Bachiru xaadim awba mi nga xamee ni moo taxawal bés bu tedd bii defal ko maamam Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbàkke waaye defal ko njabootu Serigne Touba gépp ñoo ngi wax ci turam di wax ni mu ngi sant mbooloo mi bu baax di leen wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di am mbégte ci woo giñ leen woo ngeen ñëw wuy suñu ngir yàlla ah, di wax ni bis bii kat bis bu màgg la bis bu tedd la ndax wa inda dikri saalihiina tanzilu rahma bu ñuy fàttaliku nit yàlla yi xéewal day wàcc te Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbakke kenn ku ne xam na ne kenn la ci awliyaullah yi di kilifa bu mag di ko liggéeyal boroomam di ko sonnal lislaam di ko sagal yoonu murit kon nag bu sëriñ Basiiru jëlee initiative bii euh, di wane ab liggéeyam akub taxawaayam kon sëriñ Saalihu Mbàkke xaadim aw ba nee li muy def lépp moom la koy defal te yi tamit moo nekk ci gannaaw ndax kat sëriñ Basiiru rakkam la ab taalibeem la ab soppeem la waaye ku ko déggal la kuy diisoo ak moom la ku koy laaj xalaat ci mépp mbir la kon nag bu taxawalee bis bu mel nii bii di fukkee lu yoon ak benn di ko defal Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbàkke sëriñ Saliou moo ngi koy sant di ñaan kilifa yi nga xamee ne ñoo fi teew teewaay teewal fi sëriñ Sidil Muxtaar di kilifa jataay bi ñépp ñu ñaanal sëriñ Basiru Xaadim Awa Ba yàlla guddal aw fanam te musal ko ci am ndog ndax kat euh, fa tabaarakallaa ndaw la waaye ndaw lu ab loxoom set la ndax mbooloo mii li fi teew ci ay kilifa teew fa ci barami xam-xam teew fi ci ñu baax di mbooleem qualité bu fekkoon day wooteel leneen lu lii kon du taxawal lii kon nag buñ leen woowee ngeen wuy ñoo ngi leen sant baax a baax di leen gërëm ki turu sëriñ Saalihu Mbàkke Xaadim Awa Ba ak njabootuk sëriñ Xaadim Awa Ba gépp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wal sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi yëkkati kàddu ci ndigalul sëriñ seex abdourahman mbàkke moom bàyyi seex xaddi moom maam ceerno birahim ndaamal daal mu ñëw ci jotaay bi wuy si fi sëriñ basiiru xaadim awa ba ci bis bu am solo bu rëy bii mu woote bëgg ñu jàng dund dund waaye juróom wu tedd woowu di bàyyi seex xadi mi nga xam ne moo nekkoon ñetteelu xalifa maam Thierno Birahim Ndamal Daan sëriñ Bas sëriñ Abdou bi mu jógee bay ñëw ànd naa ak njabootu daaru gépp délégation bu rëy la waaye juróomi minutes yi su ma ko ci bëggee lim li ma bëgg a wax lépp dama ko dul wax te loolaa ma gën a ñor ci tudd ay tur ndax ñu ñëw tudd seeni tur indiwu leen sëñ Xaadim Mbàkke mi nga xam ne doom la ci sëñ Abbas mi fi toogal borom daaru ànd naa ak moom ak mboolem taalibe yi ak ay xaritam buñ ci tuddee ancien ministre Lamine Sarr ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo ne ci biir délégation bi yépp mu doy Serigne Bass dafa mel ne ku defut dara kenn du la wax ne dañ lay rendre commence kon bàyyi fee Xadi dafa def lu rëy réew mi moom lu ne fi naqaree tàggee nit waaye bu ñu nee diw kan mooy waay juróom ñu ne maam Thierno Birahim ndaamal daabu loolu rek doy na sëkk aw takk ndax ñaare ñi ñi ñoo xam ne kuy gëstu ci murit war na leen a jàng war na leen xool seenu taxawaay mooy maam Thierno Birahim ndaamal daabu ak maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin ndax kii day mbokk di rakk di lépp waaye fàtte lépp topp ci ginnaaw magam ba foofu sax kuy jàngu taalibe jàng ko ci moom ci doon lépp mën a falu fu ne wan lépp ginnaawam topp si ab jàmbur boo xam ne yàllaa tax mu topp ko ndax xam na ne ka muy topp du nit muy maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiin sëriñ Cheikh Xadim mi nga bëgg tey jii rendre ko hommage ci bis bi ñépp ko war a jàng jenn jikko rek laay jël ci ay jikkoom mooy jikkoy dëddu àdduna teraangay àdduna mënta weesu doon xalifa borom daaru mënta weesu bi ngay dund ñi sant Mbàkke te bokk ci maxaram nga mag ci waaye mu woon loolu lépp ginnaaw tabax jumaa def ci milliard tabaxal Ceerno Birahim ak kër tabax bëy ci miire armeel yi tabax jumaa ñaari daqaar tabax ko madinatul rahman tabax fu nekk ak tabax waaye fu mu dëkk benn bi rek almet na koo jeexal boo ko doon xayma mu yem fi ñeent fukki junni loolooy dëddu àdduna Sëriñ Tuubaa seen maam ju baax di ñu dajale fii yéen ñi sant Mbàkke te ne ci taabal ji ak ñun taalibe leen wuy si nee na bu ñu tagg ba tàgg ci ne kii dafa dëddu aw tàgg foofu la mën a yem bàyyi jeex xaddi kuy wër ku dëddu àdduna boo ko xoolee xam ne foofu la ci moom la dëddu àdduna yem mbokk yi àdduna amul solo ñi koy xëcc ñëpp xamuñ ko fii ñu toog tey sëriñ Basiiru ñaari ñoom joxoñ muy sëñ Abdou Samad ne nañ xool ak dundam joxoñ bàyyi seex xaddi ne nañ xool ak dundam ñaari ñoom ñëpp nekkatuñ fi waaye seen i jëf du dañ ba àdduna di tukki ndax soxna maam bu saa ñu toog sëriñ Abdourahman a nga ne toog ci taabal ji njabootu sëriñ Tuubaa gi doo nga fi def seen ginnaaw di miire ay kër di dawal ay oto di maye ay billet avion di yóbbu nit ñi màkka te seen maam amul woon poos kon kuy lebal lebal yàlla mi du jeexal ndax yàlla doo nga du jeexal sëriñ Basiiru kàddu yi ma sëñ Abdou Samad jox ngir ma jot li ko bari na waaye dama bëgg a jàppale ñi yor wàllu temps bi ndax ci wax la ñu liggéey te wax kat ku ko jox micro ne ko waxal mën nay wax ba suba sëriñ Abdourahman kontaan na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba suñ borom wàccee ci moom alxuraan da koo wax ne ko booy def rendre hommage yóbbaaleel Moussa yóbbaaleel Idris yóbbaaleel Ibrahim waaye ba muy daaneel da ko ne nag fa xalafa min bahdihim xalfun adaabu salaat wa tabaru sahawaat fa sawfa yalxawna xayya xalifa ak xalfun daa bokkut ab xalifa day toog fa bàyyam toogoon mat ko sëkk mooy sëriñ si toog ci kaw taabal ab xalfun nag moom ab remplaçant lay doon boo xam ne raytaan rek lañ koy du dugal bii te mën naa dugal sookan amu fi njariñ te fu ñu xoolee maamam xeeb ko mbàkki bàll loolu dalu leen yal na yàlla yàggal leen asalaamaaleykum wa rahmatullah